ginnaaw bi nga xam te ni premier ministre Ousmane Sonko ñëwoon na démb euh, ci ngoon euh, seet si waa Colobane tablier yi nga xam te ni yëkkati na ci yoon bi euh, waa Colobane woote nañu seen wootaay seen woote bi lu woon sabab bi. waaw ñun nag dañu woote pour clarifier situation bi parce que en quelque sorte bi affaire bi di am depuis le vendredi bi coow li commencé si lañ ñun dégg ne ñun ñoo ñun ñu wax mairie bi pour mu daaneel table yi. ñun mooy kan ak kan. Euh, mooy wa jeune Colobane la wax mu ne jeune Colobane yi ñoom ñoo ñoom ñoo waxoon pour mairie bi daaneel table yi léegi nag foofu nag loolu la ñu bëgg a rétablir euh, vérité bi si situation boobu noonu waaw xam nga li si nekk mooy ne euh, fii Colobane ñëpp gis nañ encombrement bi ni mu mel fii si koñ bi léegi y a de cela peut-être ay deux si deux mille vingt bi le jeune koñ bi ñëw na ma nekk ñun dañu soxla woon yow nga jàppale ñu. pour ñu trouver benn moyen pour au moins defaraat quartier bi parce que lii commencé na nekk problème pour ñëpp euh, man euh, gisoon naa ko parce que tamit fii laa juddoo fii laa màggee si kër gi fii laa juddoo fii laa màggee kenn gënu xam marché bi euh, tablier yi ñuy daaneel ñeen ñi samay xarit lañ su ma jógee fii kër gi di foofu laa doon taxaw si di ñoom di waxtaan man sa bopp di jël naa suma alal sax jox leen pour ñoom jàppale leen seen liggéey ce qui veut dire que tey nit ki suñu demee tey ba man ma dégg ne man wala man su ma liggéey bi ma def nii man maa ànd ak mairie bi pour ñu daaneel seen tablier loolu man maa moo tax ma jël suma responsabilité ma ne dinaa ñëw informer waa Colobane informer ñi nga xam ne affaire bi daf leen soxal pour ñoom ñu xam lan moo nekk si biir su ma dellusee si fee parce que euh, bi ma jeune Colobane yi interpellé ne ma nekk lii dafa nekk une situation préoccupante man leen man euh, du xale am naa expérience boo xam ne balaa may dugg si lii bugg naa am lu leer nañ man léegi dem leen ngeen defi pétition mais Colobane rëy na rëy boo xam ne mënuñu mënu kenn mënu ko gérer fexe leen ba ñun suñu secteur yéen ngeen indil ma ay signature su ngeen indilee signature man dinaa def proposition parce que man tamit man la ne man li ma intéressé du daaneel kese parce que daaneel extension yi defarul Colobane soo daaneel extension yi am na lu bari loo xam ne war nañ ko fi def li nga xam ne muy pour sax nit yi nekk àllee seen biir kër yi nit yi sentir fii mooy seen cosaan fii fii la ñu dëkk fii fii lépp la ñuy amee lépp léegi bi bi loolu amee ma jël suma temps defar tout un programme boo xam ne pratiquement leen li moo ne ñu accompagner mairie bi pour ñu génnee extension yi parce que man extension yi ni ma ko gisee mooy ne tey jii tey su fekkee yow yàlla def na ba yow sa sa sa di marché ba mu fees da war am ngor nga dem ubbi feneen jox ñeneen job su fekkee dañoo création d'emploi wante li ñu gis nii tey jii tey moo ne dañ ñeen ñu feesal seen magasin ba mu fees ba pare génn si bi tamit occupé trottoir di occupé ko ce qui veut dire que fii tey Colobane amuloo amuloo beneen possibilité bu dul dox si tali bi ak Jakarta xam ne pratiquement mu ay nit yaa de cela presque mois fii si koñ bi fi am na am na koo xam ne fu mu toll nii que déjà ndax occupation illégale trottoir yëpp moo tax ba mu avancé wu si tali ba ñu rey ko fa xam nga leneen li après man la ne bon déjà du du yàq kese mais foog ñu defaraat parce que fii soo xoolee environnement bi nii Euh, ce serait un miracle pour que suñu doom yi sax nekk ay génie parce que fi mu toll li ñuy wax repos psychique sa sa sa cerveau du mos noppaliku parce que 24 heures sur 24 mu ngi mu ngi mu ngi daw ba guddi gi fii et puis dañu nekk situation mais marché boo xam ne du tëj marché bi amul samedi amul dimanche amul tabaski amul korité marché bi 24 heures sur 24 marché baa ngi ubbi en plus marché dafa dem ba commencé nekk un un danger pour pour la population fi mu toll nii mën mën naa la fi mu toll nii chaque deux mu am agression agression su amee fu ñuy daw dañuy daw dugg si biir marché bi kenn kenn kenn du leen fa fekk léegi pratiquement loolu yëpp ñun su amee ñu ne léegi ñu dañu bëgg a xool léegi naka la ñuy defaraatee au moins ba ñun ñu am suñu sécurité am par exemple condition yoo xam ne xale yi dinañ mën a jàng dinañ mën a noppaliku et puis dinañ mën a trouver activité yoo xam ne tamit xale yi dinañ dinañ gis seen bopp mun a mën a def liñu ñu yaakaar ci ñoom loolu moo nekkoon proposition bi léegi ma def ma def ma def une lettre ak euh, ñu monté j'ai tout un projet parce que man tamit loolu su ma liggéey la woon loolu si loolu laa liggéey pendant des années ma defar benn initiative léegi xalaat na lii su ma ko yób suñ ko yóbboo si mairie bi mairie bi dina dina intéressé wu parce que je crois tey jii tey su fekkee da ngay wut danga nga defar sa mairie yow nga am sa mairie une personne koo xam ne pratiquement il a fait toute sa carrière plus ou moins si Euh, ñëw ne la nekk man dama bëgg jàppale pour ñu ñu ñu defar ñu defar suñu quartier indil la ay ressource ne nekk man am naa loo xam ne dinaa mun a contribuer pour suñu xale yi ni yóbbu leen di leen jox yeneen condition pendant les vacances pour ñu mun a nekk à pour ñu mun a jàng loolu yëpp kenn wuyu la si ñu toog ba jour yi passé rek ñu commence jot ay rumeur que léegi ñoom dañuy war a ñëw commencé def déguerpissement yi bon jeunes yi tamit ñoom croyant aussi que fu mu toll nii li nga xam ne moo nekkoon suñu idée initiale bi ak yooyu noonu loolu la ñuy def biñ ñëwee si jour bi Euh, non avant ñu ñëw sax man j'avais eu plus ou moins certains doutes par rapport à beaucoup de choses te loolu dinaa si dellu si mais li ma leen wax dama leen ne man euh, euh, yaakaar yaakaar naa ne ni mu demee nii kenn ñemewul laal ñi nga xam ne ñoo ñoo gën a ñàkk doole bàyyi fi ñi nga xam ne ñoo am doole muy si affaire déguerpissement bi loolu mu nekkoon naa de deux comme ni nga ko waxee ñii ñii duñu du duñu duñu ay marchand ambulant Sénégal dem na ba benn instant boo xam ne suñuy wax situation bi nii on parle marchand ambulant boo nee euh, du ñu yëkkati ñi ñàkk doole bàyyi fi ñu am doole da nga bëgg wax ni donc bu ñuy euh, bu ñuy yëkkati tablier yi mën lañ leen fi bàyyi mais borom boutique yi nga xam ne dañoo def extension ci seen buntu boutique ñoo ñooy borom doole yi waaw euh, man néew ñu parce que néew ma ñu kenn def loo xam ne waru koo def mais man li ma wax mu ne comme que ñoom ñëpp ñu ngi même ñu ngi dans la même situation tablier yi ak ñi nga xam ne ñoo yor boutique yi tey jii tey su fekkee dañuy xalaat comme li ñuy wax nii comme nañu nañu jàppalante tey dañ la ñii la ñu waroon may un peu de temps ñii mooy borom tablier yi parce que borom tablier yi grand ñoom bien vrai fi ñu nekk amuñu droit nekk fa ñëpp xam nañ ko mais en quelque sorte autorisé nañ pour nekk fa parce que bi mu ngi fayeeku mairie bi mu ngi fayeeku chaque jour ce qui veut dire que kooku noonu mu ngi continuer si si état bi te li ñu daaneel fii nii représente des millions pourquoi gars yi di ko daaneel loolu tam c'est une question à poser parce que ñi nga xam ne ñoo jaay table ñoo ko daaneel waaw ñi jaay table yi ñoo leen daaneel et ils ont ils ont tout fait pour que affaire bii nii mu mu mu gaaw a jeex parce que li am jour boobu noonu bi ñëwee camions yi dañ tourné tact dañ tourné mel ni comme ñu ngi dem euh, di yéeg tali bi di dem côté na ma leen di seetaan rek ñu toog ba si yàgg wax ba si yàgg gars yi ne non non ñu ñëw tourner rek ñu tourner camion yi ma ne ma après cela nag ma ko man li leen wax mooy am ngi nii ma ko li leen wax mooy am fi mu toll nii ils tablier ba pare fu mu toll arrêter foofu opération bi xam nga te exactement ñoom ñu jël booy ne noon non non ils vont le faire ñoom enthousiasme lay àndal bëgg nañ defar seen quartier ñoom guddi gi ñu ànd ñoom ñu leen waa nañ commencé fi automatiquement dans l'euphorie booy yi topp si xam ñu daaneel ñu daa ñu commencé ni daaneel table yi bi si ginnaaw kër gi dem ba nële après arrêté le lendemain booy bi ñu ñëwee man leen waa léegi yen du ngeen def ñu ne non ñu ne ma demain suñ ñëwee léegi dañuy dañuy dugg si koñ yi léegi fu mu toll nii déjà commencé génne extension yi ba suñu kër yi sax ñenn ñi ñu informé leen ne leen ne fu mu toll nii wàccee leen ba kër gi ak fële booy nekkee ñoom ñu wàccee seen affaire yi si guddi gi ñoom ñu ñëw ñu ne non dañuy continuer bi ñu demee ba fële si biir nag après nag là les jeunes se sont dit que après xuloo am foofu noonu ba am ay intercation ak fi mu toni nii jeunes yi ak euh, le préfet ak maire beeg yu demee ñoom ñoo ñoom ñoo fa nekkoon ba après ñoom ñu arrêté sumi seen ay veste fi mu toll nii abandonné projet bi. léegi bi bi ñu ñëwee nag après euh, si laa leen ne man euh, suma suma responsabilité dinaa ko assumer parce que tey jii su ñu nee jeunes yi ñoo dem ba fële na le nit ki mun na ne man mii nga xam ne maa doon bind lettre yi nii peut-être man maa nekk derrière pour ces jeunes yi pour ñoom ñu yi. ñun li ñu demandé woon c'est très clair euh, waaw waaw waaw non ñun extension yi moo e, e, e, nekk ñun exclusivement la ñu dox ñun extension exclusivement la ñu waaw ñun boobu suñu préoccupation du woon du woon tablier yi non non on du ñu doon tablier yi ñun suñu préoccupation koñ bi la woon waaw waaw dëgg la waaw waaw ñu fee taxaw loolu la moo tax moo tax ñun bi bi ñuy jóg comme ni ma la wax ñun on a choisi de nous adresser en priorité ñi nga xam ne am nañ kàttan parce que tey jii tey ñi yore fi extension yi koo si ne arrêté la sa extension du ko wàññi dara suma diggante yàlla du ko wàññi dara léegi li si nekk mooy ne yow soo xamee situation boobu ne ñun du ñu jóg di commencé di attaque tablier man tablier su may xarit lañ grand fii laay taxaw ñoom Ousmane ak ñoom Lamine ñi génn fii yëpp ñi nga xam ne man fii laay taxaw di waxtaan chaque jour aw ma beneen aw ma beneen grand place man fi mooy sama grand place man dinaa ñëw di di di di atte ma ko def mais man moo tax bi avant affaire bi tam sax bi ma amee bi ma amee bi déggee rumeur yi que fu mu toll nii que commune bi mairie bi en quelque sorte ñoom seen li seen plan mooy ñoom ñu daaneel tablier yi seen yoon nekkul si affaire yi si laa dem kii kon ki Ibou Sall la tudd fii ma dem si ne ko ne Sall dégg naa ne fu mu toll nii gars yi dañuy dinañ daaneel seen table est-ce que yéen informé mu ne ma nag non ko ma ne ko demal nga laaj seen délégué de marché bi ndax loolu am na mu wax ak délégué de marché bi délégué de marché bi ne ko nag yéen bokku leen si ne ko talibi tali bi kese la ñuy nettoyé ñu tegu si kaw tali xam nga ba nga xam ne euh, manipulation bi ak fausse information bi jógee si mairie bi ak si ñi nga xam ñoo gérer marché bi man looloo tax ma ne man lii tey foog ma ñëw wax leen li nga xam ne moo si nekk comme ñëpp xam parce que ñun ñii euh, duñu suñu ay ennemis ñun ñii ñoo ma ñun ñoo màggandoo ñenn ñi xam ne leen bu baax ñenn ñi si kër gi fii la ñëw ñëw chaque jour ñun duñu duñu dugg si loo xam ne pratiquement day day yàqal ñi nga xam ne mu wër na ñi amuñu doole grand pourquoi ñun ñu koy def. ma bàyyi xel baax li ngay wax euh, jeune Colobane initiative bi ñu amoon dafa mel ni mairie bi daf leen a wor. non mairie bi kañ dégluwuñu sax xam nga ki ki mooy ki lay parce que mairie bi daf ñu jox mos mos ñoo jox benn mos kenn mos ñoo déglu ba ba mairie de Dakar parce que Bart am na koo xam ne fu te toll nii mooy mooy xaw ma chef. dialogue citoyen ki yore dialogue citoyen mais benn citoyen su ñëwee bind la document présenter la programme koo xam ne liggéey na Norvège am na fa position de responsable si administration bi ah xam ne mais nuy muy mu ngi liggéey si dëkk bi def na investissement si dëkk bi nii xam na xam na situation bi nii kooku su ñëwee remettre benn document ne la monsieur le maire ñëw ñu jàppante ñu defar koñ bi nii kooku soo ko faalewul yow kii li mu li def nii lu ko neex le def mais li si nekk moo ne il a manipulé plus ou moins la population de Colobane il a manipulé les jeunes il a aussi le syndicat xamu ñu yore marché bi il aussi manipulé tout le monde au finish ñun du ñu nangu toog fii ñu ne ñun ñoo ànd ak maire bi ñu que daaneel tablier yi nii mosu la nekk ñun suñu préoccupation document yaa ñu bëggoon mooy ñun ñu génneel ñu li nga xam ne mooy occupation illégale yi nga xam ne moo nekk si buntu kër yi nga xam ne fu mu toll nii mairie bi moo koy fayeeku dañuy occupé kër mairie bi di ko fayeeku yow fi mu toll da ngay da ngay da ngay am problème sa biir kër doo mën a génn da am dëj doo mën a génn benn cas ngi fii nii juste juste quelques jours avant nit ki day gaañu si biir këram kenn du ko mën a génne parce que li ñuy wax liy dëgg tamit mooy ne nit ki soo ko bàyyee si benn illégalité dina dem ba xalaat ne moom am na doole boo xam ne amu ko wala am na doole boo xam ne nguur ko ko may te amu ko parce que tey soo xoolee tey nit ki gaañu si biir këram mënoo ko génnee parce que ñi nga xam ne ñoo toog sa buntu kër amuñu respect amuñu xalaat ne fi mu toll nii lii kat am na xaaral au moins ñu tëj suñu cantine pendant une heure de temps ñuy gën def seen affaire loolu sax waa Colobane mënatuñ ko am ñun am te buntu kër gi ku nekk ñeme na fa ñëw tekki koo wax koo koo wax mu saaga la koo wax mu saaga la ce que veut dire loolu dafa dem ba xam ne affaire ambulant yi am na mais nañ nañ fàtt nañ fàttaliku ne tamit ay xale dañu war a jàng si environnement bi ñooñu ñooy avenir su Sénégal suba xale yi dañu war a jàng dañu war a am seen xel dafa war a mun a dal ñu am nekk si conditions yi normal te conditions yi xale yi am point E fan résidence ak feneen moom la xale Colobane am droit ñun droit en un environnement sain la ñuy xeex dañu am le même droit que ki dëkk fu fu nekk ce qui dire que ñun waratuñu tamit porter tout le pois de la pauvreté du Sénégal mënuñu Colobane attanul poids wu pauvreté Sénégal loolu mooy wax ci jeunes yi nekk fi yëpp ñoom ñëpp war nañ am conscience que fi ñuy ñëw ñi ñu fekk si du ñuy ëpp doole Sénégal xam nga loolu moo indi problème bi ce dire que yow soo ñëwee fekk nga xam ne amul doole yow am na noo xam ne soo ko defee kooku du mun a wax da koy intimider te loolu moo si nekk en plus avec la complicité de la mairie ñu jël buntu kër yi di ko feyeeku man je crois que waa waa waa kër ya koy feyeeku moo tax man mënu ma si woon dara mais bi ma dellu see kii moo tax Saliou bi sax moo ma ne fu mu toll nii ko tons lii yëpp mairie bee koy feyeeku ma ne comment a mairie bee koy feyeeku mu ne waaw te li si nekk mooy ne tey pour nga def li danga nga war am une autorisation dana laajte ndax ndax kenn fi am na autorisation kenn amul autorisation écrite euh, euh, parce que ñi ñi ñi impliqué aussi affaire bi du mairie bi kese parce que y a le ministre de l'environnement ñoom ñoo ñu war am na ministère de l'urbanisme ñoom ñoo war xool ndax installation yëpp conforme na parce que fii dem nañ ba installé ak ba ba ñëw ba poto ñu jël cantine presque dugal ko si biir xam nga parce que y toutes ces situations là man moo ko gisee man ne ñun li ñuy def moo ne waruñu toog fii di xuloo di xeex nañu def benn proposition boo xam ne ñun ay citoyen lañ li ñu li mooy defaraat suñu quartier du daaneel kese léegi nañ defar benn programme boo xam ne peut-être li suñ ko tegee stable bi au moins on a pas eu de réponse waaw waaw. on a am nañu aussi euh, beneen jeune boo xam te ni mi ngi euh, tudd Abdou Ndaw dëkk Colobane euh, bi gars yi ñëwee di dindi taabal yi moom bokk na sax ci ñu àndoon ak ñu moom moom maanaam fekk les témoins des faits voilà Abdou naka la demee woon. waa waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar en fait ñun li ñu bëggoon c'était pas pour ay daanal ay tablier. et tout quoi mais de ce fait mairie bi dañu ñëw gëmloo ko ñu ne dañuy def déguerpissement ñu jàppoon ko ni déguerpissement bi day tàmbalee si koñ yi après ñu dugg si marché bi pour mu mën a am espace de ce fait bi ñu ñëwee ba ñëw woo ay jeunes les jeunes de Colobane ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu jox gars yi ay gilet gars yi sol ay gilet ñu foogoon ne dañuy tàmbalee si koñ yi avant tout par la suite ñu ñëw dugg si si marché bi bi ñu dugg si marché bi ay table dañu commencé di daaneel tablier yi di daaneel table yi ba jusqu'à l'angle ci koñ bi ci rond-point Colobane bi de ce fait ñu ne comme premier jour la léegi nañ bàyyi ba deuxième jour ñu xool nu ñu daanalee extension yi nekk si biir koñ yi bañ ne ok c'est carré le lendemain bi ñu ñëwee ils ont refait la même chose mooy que ni ci biir marché bi lañ duggaat continuer loolu de ce bi ñuy continuer loolu ñu xam ne ñii essence yi liñ ñu waxoon ak ñoom li ñuy def nii du benn si la leen gars yi wax ne leen yéen li ngeen waxoon ak li ngeen di def c'est diamétralement opposé du sax benn bi loolu amee ñu commencé jéem a créer foofu noonu ay quelques wax ay détails ba ne ni ñoom dañoo gedd waa mairie bi ne ñoom dañoo gedd si lañ arrêté arrêté affaire yi si la après ñoom ay Bas ak euh, Saliou commencé di échanger ak ñoom ay kàddu xam nga si lañ na ñoom dañu gedd maanaam très motif que ni les jeunes ñoom ñoo leen merloo ñu gedd quoi te demeewul noonu comprendre nga mais ñun suñu problème c'était pas biir marché bi fii ñun suñu problème mooy maanaam mbedd kolobaan yi koñ yi nit ñi am fu ñu aw dangay xëy suba war a génn nit ñi di la puusal nii pour nga jàll. maanaam yéen seen problème du taabal yi nekk ci yi sës ci marché kolobaan bi mais yéen seen problème mooy seen buntu kër yi cantine ya fa ne. buntu kër yi mooy suñu problème cantine yi fa nekk ak kaw tali bi. xale yi dañuy xëy war a jàngi ci kaw tali la ñuy dox jakartaaye di accélérer fii nii di mbëkk xale yi loolu mooy ñun loolu mooy suñu problème actuellement nii extension yi gars yi génnee nañ ko ba ci kaw tali bi amatoo foo dox amoo foo toog waxumala foo dox sax mais foo toog sa buntu kër sax mënoo fa toog même février bu amee doo mun a toog sa buntu kër tabaski bii nii passé récemment rek pour nga rey sa xar sax amoo foo ko reyee nit ñi ñoo sonn si loolu de ce fait ñun ñu ne woon ñun waa koñ bi nañ gis suñu tons se mu waxtaan ak moom bi ñu waxtaan moom ci la bind ay pétition am jox ko waa mairie mais amul woon réponse de ba liy xew nii xew lii am nii am mais lépp lu lépp luñ ci mën a wax daal mooy ñun li maire bi def nii daf ñu yoon jéem a sàqetoo mais ñun lii nekkuloon suñu objectif parce que comme ni la ko tons bi waxee rek tablier yi nekk fii nii suñuy waay lañ suñuy nijaay fi nekk comme moom ak suñuy mag ak suñuy rax ñoo fi nekk comprendre nga de ce ñoom liñ nekk sax nekku nekkuñu si yoon mais affaire bi ni ko mairie bi doxalee dafa mel ni comme si que kumba am ndey kumba amul ndey la comprendre nga parce que tey jii nii munoo jël ñi nga xamante ne nii nii ñoom ñoo am doolee poche nga bàyyi ñoom ñu nekk si jàmm nga jël ñi nga xamante ne nii nii dañuy taaba taaba nga ne non naa leen yëkkati fii loolu pour ñun sanaa n'a pas sens amul sens bu ñuy defar bu ñu jógee ne dañuy defar dañuy defar maanaam defarandoo lépp mais pas di dindi ñii di baay ñii voilà ñu ngi jégalu si kàddu yi nag.